asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV dañ leen di nuyu di leen ziar waa di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rek waaw ba santaat yàlla ah, julliwaat ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam li ko waral nag mooy fi ñu taxaw ni yaakaar naa ni ñu ngi ci buntu armée lu yoof foofu lañ taxaw liñ feen di tey nag mooy ki nga xam ne moom moo doon alin kamara ñu gënoon ko xam ci turu booy Bambara moom la suñu borom bi yàlla jël mu wuy ji boromam démb ci àjjuma ji tey samedi ñu war ko denc fi nga xam ne moom moo di yof loolu moo tax daal tey ñu ngi ñaan yàlla yàlla mi nga xam ne moom moo man te yore kàttan te yërëmub jaamam yàlla na ko jéggal yërëm ko te xare ko aljana mook bépp doomu aadama boo xam ne dina la fekk fii wala nga fekk ko fi di wax ne nag àddina nii la hélas demal maa ngi ñëw la rek ñi dem ñàkkuñu fulla waaye ñu fi des tamit fayda bàyyiwu leen fii ah moo tax daal yàlla na yàlla xiir ci ci ñuy def lu baax di ko wax di ko dox parce que leneen loo def ci àddina rek pour man su dee du mbaax rek ah defe naa ne est-ce que dina bëri njëriñ kon yàlla nañ yàlla xeer ci mbaax ko koo xam ne daal famille lamb yaa ngi ci biir rawatina waa Grand Dakar bi nga xam ne ku ko tudd ku tudd Boy Bambara di nga tudd Grand Dakar di ko jàll ñi nga xam ne ñëpp ñoom la formé ci wàllu sport bi nga xam ne ci la nekkoon ak tamit képp koo xam ne daal xamoon nga ko rek ñu ngi la koy jàll di ñaan yàlla jéggal ko xare ko aljana moo tax nag il faut ñu jëlal leen fi ay kàddu ci ay quelques ay nit yoo xam ne nii tey ci askan wi la ñu bokk rawatina askanu lamb laaj leen ci seen xalaat ñu def ci moom ay seede te defe naa itam loolu luy war a am solo lay doon. waa kii ma jàkkaar mooy Gora Ndoye jiite les jeunes amateurs bokk si làmb ji Gora maa ngi lay ziar. waaw Babacar maa ngi lay dolli ziar di ziar ak lamb làmb yëpp vraiment di masawu ak lu lamb ndax tey guy gu mag daanu na muy suñu père booy bambara ñuy ñaan yàlla vraiment suuf woyof si kawam di ko di ko jaale monde de la lutte yëpp. ndax vraiment kilifa la woon ci làmb ji ndax li ko waroon ci làmb yëpp def na ko yàlla suñu borom nag mooy ñëw ak ndogalam ñu ngi ñaan yàlla suuf of yoof yàlla na woyof si kaw mhm. euh, tey looy wax njaboot gi nga xam ne ñoom la fi bàyyi. waaw li may wax njaboot gi mu bàyyi mooy ñu ñaanal leen yàlla rek yàlla teg si njaboot gi loxo ndax ku li nafsin saay xatil mawti bakkan bu ñam dund rek di nga ñam dee. hélas ba tey ñu ngi fi nga xam ne moom mooy yoof rek dafa mel ni ñi ñi taxaw nii booy bambara defe naa bëri nit ñoo xam ne moo leen formé wala sax moo leen formé mu koy jëkke ci nga xam ne moom mooy Buuru Tane maa ngi lay nuyu Buuru Tane numéro un. oui maa ngi lay fay maa ngi fay bu baax di leen ndokkale ci ñëw bi ngeen ñëw teew mu nekk lu rafet tey ñu am tiis tamit tiis mu metti di sunu papa ju baax joo xam te ni tey mën nañ wax ñàq nañ koo xam te ni mëntuñ ko am waaw ndax moom moo ñu yar di sunu papa nag euh, tellement que mën naa wax ni que. su may wax si moom sama xol day fees ndaxte bu dul dara euh, def ñu yar depuis ñu nekk ay xale euh, sama koñ ak koñom sorewuñu woon euh, may ma maaseek doomam mi Tidiane kamara ak Modou Camara booba sunu rakk la ak ñoom badu yooyu yëpp ma yar leen xam nga tey ji jàngal ñu aussi tamit yar ñu jàngal ñu xam nga wan ñu lu bëree bëri ñii nag samay rakk la ñu woon ñoo nekkoon ci écurie Grand Dakar man ak ñoom man maa nekkoon magu écurie bi man ak Pape Sarr ak Tidiane kamara waaw su may lim ñu fa nekkoon sax ñu bëri yaakaar naa dinaa juum. yóbbaale na xam-xam rek laay wax xam-xam dem na daal xam-xamu làmb daal dem na parce que ñun ñu nekk ak moom xamoon nañ ko moom da doon wax bopp nit karaw gi ba ci tànk bi ci suuf lépp prise la lépp lépp prise la. maanaam ñun ñii mu yoroon képp ku mu ci bàyyi rek mën ngaa jàng mën nga yor écrit kon xam-xam dem na livre dem na bibliothèque dem na. naag Boy Bambara moom am na loo war a mën wax ci moom yaakaar naa ne. non euh, Sénégal gépp am nañ lu ñu war a wax ci moom parce que suñu waajur la euh, doomi réew mi la comme niñ ko tuddee borom drapeau yi la lim fi def mu ngi ni weng euh, en conclusion référence dem na moo waral suñu teewaayu tey fii. lu ñu def nag lu dul wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñaanal ko fa mu jëm gënal ko fi mu jugee waaw loolu daal lañuy ñaan yàlla. Mhm. tey boo amoon message booy sànni njabootam wala monde de la lutte ban lay doon. non bu ma amoon message bu may sànni Sénégal gépp laay wax. parce que njabootam ak moom mi dem ak ñëpp Sénégal lañ euh, nañu leen di góorgóorlu. bàyyi fi tey jii nii mu ngi dem ñu ngi naan borom drapeau yi yaa ngi dégg kon ku nit ku liggéeyal réewam la nañ leen ànd bokk ndey bokk bàyyi yeneen te jàmm di def lu baax di dox ci lu baax di jëf lu baax moo am solo pour que fii nga xam ne mooy dernière demeure nga fekk fa lu baax lépp yàlla na yàlla def jàmm. war na mën wax ci paa bi yaakaar naa kilifa gi maa ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar Babacar. tur bi nan la. Asgay. loo mën a ñu loo ñu mën a wax si booy Bambara. waaw mais ku baax rek ku baax dem na quoi mooy suñu papa. moo ñu tàmmal làmb moo ñu miinal làmb parce que si làmbam si la si la mbër yu bari luqee ko ku mel nii ay Moustapha Gueye ay ay ay Mansour Diop ay Dégol Pape Boy Niang ñoom ñëpp dañ daan ñëw ñaari tali ñun nag amoon nañu chance bokk moom kër waaw waaw amoon na suñu benn cousine boo xam ne soxnaam la woon da daan ñëw foofu si kër gi lu bari ba pare mu nekk këru làmb parce que double lees bu mu nekkee ñaari tali ñun ñoo jëlloo woon kër moom tamit chaque jour du balees daraan ñëw si kër gi booy bambara yor leen yor ñoom ambourage kat ak euh, ñoom Mor Fadam loolu loolu démb la quoi. grand buur géwél bu Dakaractu di suñu grand defe naa tam lamb itam am na jéeg bu am solo boo ci doxal tey icône bu mag jóge fi wuyu ji borom muy Boy Bambara yàlla na ko yàlla yam xare ko aljana yow it goneeg Ndakaaru nga goneeg Sénégal nga loo ñu mën nax ci góor gi fi jóge tey. xanaa di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, Sénégal tey dafa ñàkk benn monument koo xam ne damay wax ne patrimoine la woon. booy bambara bu ñu delto ci histoire xëj na ñun ñii fekk ñu fi waaye li ñu fekk histoire tegal ko fi te ñun xale yi man caa jariñoo ci moom mooy que nit ko ëmb la woon te sportif bu mag la woon. man li ma jàpp ci image am jamono bi may nekk rajo Afia FM man ak Fadi doo baax boobu ñu ngi def benn émission bu tuddoon pays mbër yi daan am samedi à partir de dix de ba midi yal daan def bu combat bu mag a am. suñ ko mësaana wool rek day bàyyi lépp lu mu jàppoon ñëw bokk ngeen plateau bi bu daan génn nga yëkkati deux mille francs jox ko sax daa lay bu ma lii ah, li may def yéen laa koy defal donc euh, maanaam engagement citoyen bi mu amoon xam na ko et li ma gënoon li ma gën a marqué ci moom mooy euh, nit ku libre woon la ci ay xalaatam mooy ay xalaatam euh, mënuloo ko fi mënuloo ko indi leen ba mu changé ko combat Modou mootuloo Balla Gaye bu njëkk ba bi fi génnee wax la muy wax teg ko ci cadre sport mu am ci ay coow yu bëri taxul woon mu changer position ci li mu doon wax donc euh, jël naa juróom-ñaari drapeau rek ci réew mi doy na maa jël drapo arène sénégalaise doy na champion boo fi tudd tey Boy Bambara am na ak yow bés donc bi ma jógee këram loolu laa ak njabootam ne leen tey am na génération buy ñëw boo xam ne xamuñu ko woon tey ci lii tey lañu ko mën a xamee bu subaa dix dix ans ci kanam quinze ans ci kanam nga gis xale bu daan dégg Boy Bambara bu duggee sur bu tàppee Boy Bambara rek dana gis lépp lu ko concerné woon euh, mag ñi nag ñu ngi jeex mag ñi ñu ngi jeex donc li may wax la nouvelle génération mooy que nañu profité ci mag ñi mooy jege leen avec humilité servir leen pour mën a jariñu ci moom waaye bokk na ci mag ñi nga xamante ne que daan nañu defar làmb euh, Babacar euh, bi mag ñi ci bëri tëddee ci la làmb sax commencé am yenn certains problèmes yi mais bu njëkk làmb xamu ko woon mooy problème daan na am ci biir làmb ma ngi jug sol seen dàll dama la ci jox benn exemple rek exemple Zos ak Boy Niang bu du woon ak magi làmb kon tey heure bi demee na neneen waaw waaye Boy Bambara li ko Sénégal gi yëpp mën a sereel mooy nit ku laa biir la woon nit ku yaatu woon ci ay xalaatam la ndax nit dina xam dara ba noppi te du yaatu ci ay xalaatam nit ku yaatu woon ci ay xalaatam loolu waaye it nit ku bëggoon la renaissance la woon gis nga euh, fi mu jaar xale yi nekk ñaar tel yi ay ñoom caat ay ñoom tafa booy bambara da nga daan gis xale yi bu ñu amaan bis sax daf ko daan yenu teg bés foo xamante ne que da ngay gis ci ay doxalinam xam ni kii kat doomi jàmbur sax amaan a ñoo ko gënal doom yi mu jóg. Ibrahima Faye bés defe naa bu Lutte TV defe naa ne yow booy bambara am na ñu mën wax ci moom ndax su ma juumulee ci wéradéem ànd ngaa ku mel ne Luc Nicolaï am lu ngeen ko demoon doon ko ko jàppale. waaw yow defe naa bokk nga ci ñoo xam ne mën nañu muñ nga jëflanteeg moom ci kaw suuf ci lu baax. macha allah booy bambara c'est vrai que bu ñuy naa ni boobu ñu ngi waaj a um ma seeti woon ko boobu ñu amoon benn nouvelle bu ñu joxe woon nekk wàcc na liggéey ñu comme ni ñu ko yàggoon di annoncé rek yàlla doon weddi donc euh, saa yi ñu demoon fekkoon ko mu mu positif mu positif. wax dëgg yàlla nekk nit ku gëm yàlla nit koo xamante ne da doon delloo si xel yi ci yàlla tout le temps nit koo xamante ne boo ko fekkoon malgré feebar bi nu mu ko jàpp jàpp baat bi de doon forcé di waxtaan di la waxtaanal boo ko tooñee ci làmb ngeen di waxtaan tuuti ku amoon amuuru làmb la vraiment très très positif donc tey askanu làmb ñoom ñoo ñàkk Sénégal moo ñàkk ndax nekk na koo xamante ne je pense qu'il a formé énormément d'athlètes bëri na ay champions yu nekk ci dëkk bi fi Sénégal am na fu ñu jaar ak booy Bambara donc c'est une grosse perte pour euh, le Sénégal c'est une perte pour euh, le monde de la lutte ñu koy jaale famille wam di ko jaale tata Ndeye Soufi di ko jaale sama turandoo ñoom Ibrahima nga ne ay jarbaat lañ ci moom ak ay doomam yëpp ñu ngi leen di koy jaal bu baax a baax. ok champion maa ngi lay jaar di la jaale bokk. Adja Babacar yow tam maa ngi la koy jaal di ko jaal Sénégal waaw di wax ne tey dañu fi teewoon rek pour ñaan si suñu papa booy bambara di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xere ko aljana bi jaay Seydina Mohamed ab képp ku dëddu àdduna parce que àdduna itam nii la daal demal maa ngi ñëw rey la xam nga kon ñun ñu fi des nañu ñaanal ñu dëddu daal te xam ne it noonu daal lay mos di demee daal. yow loo ñu mën a wax ci moom ndax nekkoon na koo minanteel wala. waaw des fois doon nañu gise nag wax dëgg yàlla maa ngi fàttaliku mosul ñu daje ci buntu stade bi ñu tee ko téema walaay Azim fekk mu bëre ba ci semaine bi ñëw pour bàkku si mu ne ma kii waru ngeen ko te da ngeen ko war a bàyyi mu jàll ca ko gën a jàppee wax dëgg yàlla suma agent bi nga xam ne moo yore suma communication muy cuun ak papa ñoom seen papa moo doon entraîné Boy Bambara ñu nga na leen toog tey ma ànd ak ñoom ñëw partagé ak ñoom naqar bi daal di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm bi jaay Seydina Omar. tey ban ban message ngay lancé monde làmb. waaw di wax ne làmb ji moom xam nga. waaw bés bu mel ni moom bu amee xam nga comme ñëpp ngi champion yi ngi ñëw teew xam nga. am di jàmm yi soppe yi supporters ñëpp ñëw teew moo lay won ñun ñëpp benn lañu quoi wax dëgg yàlla képp ku xewle itam nii la mos di demee kon nañu gën a jàppante gën a teeyante te xam ne mbir mi suñu mbir daal ñoo ko moom. waaw. Ibrahima Mbaye di nekk écurie Fass nekk sa manager léegi yaakaar naa ne Boy Bambara génn tey àddina yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana am na loo war a mën a ci moom. waaw dañuy wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ñaanal suñu doyen bi nga xam ne moo génn àdduna yàlla jéggal ko te yërëm ko man euh, mën ñu wax ne ci moom li xam rek ak li ñu fekke mooy sunu doyen la maanaam tàggat na ci loo xam ne kenn ku ci nekk tey mën nga ci am àjjana mën nga ci am teraanga parce que kenn ku ci nekk jàngal na la bëri jaar nga ci loxoom tëgg na ba nga am fa teraanga am fa xam-xam kon kooku defe naa ku doon jiyaar la day ñaan yàlla jégal ko te yërëm ko ndax it champion boo gis mu takk ngemb fii jaar na ci booy bambara rawatina Birahim Ndiaye Mbiita Ndiaye Sita Fa Thior amul kenn ab Sadio Camara ba ci man mi Guèye Camara Alsane Diakhaté Ndiouga Dia Mansour Diop Mbacke Ba su ma limee daal dégol suma ma limee daal du ma fi mën a jóge kon loolu mi nga xam ne defoon na ko ci ñun ba kenn ku ci am ci teraanga am ci xam-xam tey ah yàlla na ko suñu borom fay yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla yërëm te xam ne daal champion dem na koo xam ne kii de bu wax mu sëñ Babacar Sy defe naa ko ko laaj war nga koo laaj ci Boy Bambara Boy Bambara loo ñu mën wax ci moom mu aji dem ji tey. ah sant yàlla gënt bi rek sant sëñ Babacar bu baax te xam ni moom liggéey na monument la sa àddina bi te moo tax lu baax rek am solo yal yàlla gën a xiis lu baax Boy Bambara man sama xarit la soo ko masaan seen daf may kot man ak moom lu bëri ma toog ko xool di xam ne àddina lu baax rek am solo waaye dama nii ku baaxoon yokkal sa baax boo baaxuloon sax. xel bu baax te xam ne àddina bi dara jër ko fi ndax lu ko yóbbu duñu fi bàyyi kon nit ñi ni ñu génnal lu baax li leen yàlla jox ni si dimbali doomu aadama yi dafa am solo am nañu xam ne tey bu ñu añee bu ñu ndékkee du ñu bu ñu reeree bu nu añee du ñu reer te àdduna bi mu toll dara jar ko fi kër dëgg gaa ngi de lal deux millions rek trois millions yooyu yëpp sax du bàkkoo jaru de bay bambara liggéey na lu baax lu nekk doomu aadama yi yëkkati nañ këpp dimbalu ko waaye yàlla bu soxla bu soxlaa rek ñëpp ñàkk. mu mel ni réew li nga wax noonu am na solo parce que démb gis nañ ay ñu màgg joge fi bokk na ci sëñ Atou jaañ ak doomu Doudou Ndiaye Coumba Rose. booy bambara Cuuna Ndiaye muy loo xam ne daal lu metti la ak ñeneen ñoo xam ne xëy na xamuñu leen. xam man sëñ bi man su la may doxul man xam nga sa lan laay dox léegi si yàlla ak yorante bi ak sëriñ Babacar Si man ku am ay millions ma ku am ay milliards ñeew ma la ku am doy na ma sëkk mi yàlla yonent bi sama ñaari waajur ak sëriñ Babacar si góor gu tedd gi te mu metteral bàyyu ma waaye may wax ne doomu adama yi lu baax lu leen yàlla jox mi alal ji ay milliards nu ngi ko génn dimbali doomu aadama yi c'est a temps dafa jot mais am ni xam ne a nu reer nu de nu ba pare bas bi am mais ñi yàlla teral si ay milliards kay nu ngi ko génn joxe ko naa wax benn kàddu rek jamono gi mu toll laa nii man Habib Mbengue bi sëñ Babacar si koy dimbali ba banque teel ko dimbali. defe naa ne war nañu mën wax dara si Boy Bambara muy président Moussa Thiam bokk ci euh, amateuru làmb yi président ñu ngi lay nuyu di la ziar. Euh, Babacar maa ngi leen di ziar yow euh, lu ma mën a wax ci Aliou man Aliou bi ma koy xam boobu xale laa de 65 laa xam Aliou boobu ñu ngi woon village artisanat moom mu nekk chauffeur foofu chambre des métiers direction village artisanat Soumbédioune ñu ngi jàngee Soumbédioune bu ñu defee bêtise ñu ne nañu woo Aliou. ndax Alioune moo doon mbër bi bu ñëwee dañuy conseiller dala napp nag bu la nappee ba nga tiit mu jëndal la cere ak soow loolu rek laa ma marqué cere ak soow bi mu daan jënd da ko doon jënd dañ ko may xale yi ndaw la ñu woon ñu màggee après bi ñu màggee ñu dem lycée mu nekk foofu ba jóge foofu dem retraite mais maa ngi fàttaliku benn année boo xam ne 74 boobu euh, dafa am benn drapeau bu mu gagné woon indi ko village artisanat boobu sama nijaay bijoutier la woon ñu defaral ko benn chaîne or chaîne plaqué or yooyu defal ko plaque or plaque bu rafet chaîne bi moom la doon bakkoo bu daan sol si vêtement bi di ko bàkkoo loolu laa fàttali si moom ay baax nag ku baax a baax baax bëgg métier yaru foo ko fekk day ree ah, te ci mag mag boo xam ni il ne s'énerve jamais il rigole seulement loolu rek yàlla na ko yàlla xare àjjana ñun ñu ñu ñëw fii tey euh, euh, moom dafa berse sunu lamb ñun daan jóge Médina dox ba arène sénégalaise pour dem seetaan Boy Bambara ah. ak ay moo Modou Pouy ay combat yu noonu wala dem dem seetaane affaire yooyu yàgg naa loolu li ma lay wax nii booy Medina ay ndaw yee ay ñoom Youssou Ndour ñoom ñëpp dañ doon def loolu yàlla gis na assistance bi waaw loolu daal moo doon wax bi quoi tey et puis ñaanal ko yàlla xare ko àjjana kii mooy euh, père Babou Madoune juuf hélas man ñaari euh, waaw euh, defe naa ne yow booy bambara am nga loo ñu war a mën wax ci moom. waaw buñ la ko jaalee. booy bambara xanaa rek. li ma mën a wax ci moom nit ku baax la nit ku xolom set la du jàpp dara te li mu doon yëngu li ci marqué defe na amul nit ñu ko ci marke xanaa di ko ñaanal sunu borom mi yor yërmaande yàlla na ko yërëm Noiro bu ñaari tali bu Grand Dakar defe naa te booy bambara am na lu wara a wax ci moom ginnaaw bu ma la waaw amasubilahi mina seytaan rajim maa ngi jaale àdduna yëpp lu làmb képp kuy doomu aadama képp koo xam ne day yëngu si sport maa ngi koy jaale sunu père Boy Bambara waaw mun nañ ne ñun ñi ñun ñi di wax ak moom si moom lañ soxee ko man képp ko ma xam Papa Boy Bambara nga ma xamee waaw te bari na ay champion yoo xam ne si moom lañ soxee ko champion yu bëri yi ngay lim si foofu lañ soxee ko Papa Boy Bambara waaw kon ñun mun naa ñun ñëpp ñoo ñoo ñoo bokk ñàkk quoi di ko ñaanal yàlla yàlla yërëm ko xaaral ko àjjana ooy foofu suuf si kawam yaatal bàmmeelam leeral kanam ginnaawam ate ko si yërmandem barke Seydina am sunu pa sunu lépp sunu conseil sunu lépp maanaam man su ma nee damay bëgg lamb sax Père Boy Bambara moo tax barke Seydina Muhammad ñun ñëpp a ñàkk mais ñu lay koy séddale ndikaal yéen ñëpp waaw yàlla na yàlla yërëm xaaral ko àjjana kii mooy Père Bourkhane Wade entraîneur wala boog manager Boy Niang Père maa ngi lay nuyu di la jaar di la ki ñàkk waaw euh, Babacar ah dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun eh, Boy Bambara nekk na koo xam ni vraiment làmb ñàkk na ndax lu tax ma ne làmb ñàkk na koo xam ni il a été plusieurs fois champion d'Afrique eh, yore équipe nationale bëre carrière bu mu jeex ak bépp champion boo xam ne bokkoon na ak moom jamono yor drapo eh, bu bu bu bu nationale bu bu bu bu Makhari Thiam yor plusieurs drapeaux sax d'ailleurs kon moo tax ñu ne làmb ñàkk na mais nit la woon koo xam ni ku simple la woon ku bëggoon sport ku bëggoon xale yi mu yor saayoo ko mosaan a gis si làmb rek am na ku muy indi te bu la indee da ngay yëg fierté bi muy am ci ànd yow soo daanee mu ànd ak yow jubilé soo daanoo mu defal la amul benn xale bu mos a yor nga indiscipliné kon làmb daal ñàkkati na koo xam ne euh, ku amoon njëriñ pour le Sénégal am naa yaakaar ne nag xëy na état bi lu à partir du ministre euh, euh, ministre des sports Matar Ba am na normalement yu bari yoo xam ne war nañ ko mën a defar wala ñu parce que monument la koo xam ni même centre sax war nañ ko mën a tudde wala ñu tudde ko loo xam ni lu jëm ci affaire làmb la Doudou Baka Sarr waaw moom mooy président école de Doudou Baka Sarr maa ngi la koy jaale yow tamit di la wax daal di laaj say témoignage ci góor gi fi jóge tey. waaw comme ni ko sama frère et ami Bourkhane waxee rek dañuy commencé ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàllaa ñu joxoon moo jëlaat mais di ko sant bu baax a baax ndax aussi le témoignage qu'on peut fair ci euh, Alioune Camara di bu ñu koy wax booy Bambara du dara lu dul le grand sportif de haut niveau depuis les débuts de l'indépendance muy accompagner lamb ba léegi di accompagner la lutte en question làmb ak lutte c'est c'est deux choses lamb sunu aada la mais la lutte elle est universelle muy accompagner la lutte olympique gréco et tout nekk nit koo xam ne kii ni ko Burkhane waxee léegi baax la def ouvert à tout le monde ba pare wax dëgg yàlla amaloon njëriñ ñëpp amaloon njëriñ ñëpp du def lu dul nag di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana. mu mel nii ba tey Boy Bambara kii moom war na ci maanaam luñ wax ginnaaw bu ñu ko ko jaalee grand Modou a gudd wér a yokku. Euh, père Modou Bey comme ni la gars yi di waxee. ni ñu lay wooyee. ko jaalee loo ñu mën a wax si moom. waaw di leen ko jaale ñu ne ah, làmb nag mag mu baax la woon man je me rappelle bu ñu nekkee xale bu musaan dem ba Diop di bàkku ji jamonoy mbéygay Pape Kane wala mbéygay Double Less day ñëw këram mu takk jàgg yi génne coupe yi génne drapeau yi en ah, drapeau arène mi si mi ngi si mi ngi ci loxoom ba ni mu génne àdduna moom moo fi nekkoon moo champion gëmoon làmb nag bëggoon ko ba pare nekkoon nit ku laabir ku bëgg njaboot ku lewet mën a kaf mën a mën a kaf mën a fo mën a rey ñun dañoo ñëw nekk la nekk lu xale luy di ñëw ci këram di ko seet si su ma saan di bàkku dañu di topp ci ginnaawam mu takk jaaj yi takk takk sor yi ñu ànd ak moom mu dox jëm mu dox jëm jëm Demba Diop lamb dem na kon jeunesse bi ñu nekk dañu war a xel ci Boy Bambara ku mel ni Boy Bambara ak ak Père Balla ñu mel noonu ay modèle lañu woon ci làmb kon xale dañu war a roy ci ñooñu parce que ñoom dañu doon bëri ak passion rek dañu bëri ak plaisir lamb moo ñàkk nag bon lu ma a wax bëri na mais xaju xaju xaju xaju xaju fii daal ndax dañoo nekk nekk ci tension dañoo ñëw ci dëj bi rek di jaale di ko ñaan yàlla na yërëm yàlla suuf seet si kawam yàlla yàlla lamb moo ñàkk kon lamb nañ bàyyi xel ay ay famille la ñu rek maa nga ñaan Equivox yàlla na yàlla barkeel mu jëm ci kanam ba fi ngeen ko bëgg yóbbu ngeen yóbbu ko fa ak seen DG rawatina yow jërë ngeen